bul fàtte ni cangaay li sunna la bu ñu ne yàqu na itam su bëggee tuyaaba dellu baamuwaat ko waaye su sawarut mën naa bàyyi rek du tee julli ga moom baax wanu di ba soppeef na taxsiinu xëy atin rafetal aw melo wa jamiilu ciyaabin ak aji rafeti yéere wa tatyibun ak gëttu maanaam xeeñoo xet gu neex li xëyri nisaa in ñeel ñu dul ay jigéen wa mashyun ak dox ak tànk wa tahjiirun akuk jollorlu maanaam dem ci ba waxtu jumaaway bëgg a jege si wax na yettis na yi aju ci jullig jumaa ga mu ñëw nag ci yañu ca sopp yiñ ci sopp nag moom moo bari lool buñ koy topp ko wàññi dana mel ne dana àgg ci fukk ak juróom bañ ca njëkk a tudd nag mooy rafetal aw meloom te mooy jemp ay mustaasam bu guddee ba ëpp léwi ay wexam bu fekkee aajo woonaa léwi xus kawaru poqtaanam wat kawaru naqam ndegam aajo woon na ko yooyu mu wax yëpp daa dugg ci rafetal melo wa nga teg ca nag soccu bu ñu nee nag soccu gi lu ñu sopp la mën na am sax mu dem ba war ndax bu amee xet gu naqari goo xam ne soccu mën na koo dindi faaw mu war a soccu ndax dindee ko xet gu naqari ga ci gémmiñam mu teg ca rafetal ay yéeréem rafetal ay yéeréem bu dee dem jumaa nag moom dañuy jàpp ne yére yu weex lañ gën a taamu ci jumaa doonte sax gënuta yees gënuta rafet daa wuuteeg bisub korite mbaa tabaski moom lu gën a rafet rek doonte weexut lañ gën a taamu bu ajjuma ja doonee bisu korite boole ca mbaa bisu tabaski nag kon dañuy sàmmoonteeg yaar yépp su amee lu gën a rafet te weexut mu sol ko ba ba muy julli ji jumaa buy dem ci jumaa ji nag sol lu weex bu julli jee ba ñëw nag dellu solaat la gën a rafet te weexut da cee teg gëttu maanaam xeeñoo xet gu neex taamu nañ ko lool ci kuy dem ca jumaa ja waaye nag yaar yi mujj wax muy rafetal yére ak gëttu xeeñoo xet gu neex jigéen bokku ca jigéen moom buy dem ci jumaa ja du sañ a waaj du sañ a xeeñoo xet gu neex da cee teg buy dem ca jumaa ja mu dox ak tànkam bu dee ñibbisi moom jaamu yàlla gi jeex na mën naa war mbaa mu dugg oto mbaa leneen waaye jëmmi dem nga moom sopp nañ mu dox ak tànkam ndax la addis ba ne manir barrat qadamaahu fi sabilillah xaramahu llahu xalan naar ku dem ci topp yàlla ba ay tànkam fënd ca yàlla araamal yaramam ci sawara dañ gis ne dox gi jëm ci jumaa ja bu xawee sori rek mën na caa amee ay tànk yu fënd te nag li ci ëpp bu waree moom mbaa mu dugg ay tànkam mën naa bañ a fënd te it ndegam day wuy ji wooteeb yàlla kon dox ak tànkam ak toroxlu la loola mën naa tax yàlla yërëm ko defal ko paju aajo da cee teg dem ci waxtu njolloor njolloorlu teel a dem ca jumaa ja takk-takk ba mooy bu ñu nee suñ digganteeg ñi noddu nodd gu jëkk gi des na wenn waxtu wenn waxtu woowee la ñuy xaaj juróomi xaaj xaaj bu ca ne doon fukki minit ak ñaar da addis ba waxee nag ku sangu ci bisub ajjuma bi nañuy sangoo janaaba ñu waxoon ne sunna la teel a dem nag ci fukki minit ak ñaar yi nga xam ne ñoo njëkk ca waxtu woowee day mel ne am nga tuyaabay gëléem gu suur da ngaa mel ne ku jaamoo sa boroom gëléem gu suur mu fay la tuyaabay gëléem gu suur ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp day mel ne jaamoo nga sa boroom aw nag mu fay la tuyaabay nag ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp mel ne jaamoo nga sa boroom am xaaf mu rëyi béjjën ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp mel ne jaamoo nga sa boroom ak ganaar am tuyaabay ak ganaar ku dem nag ci fukki minute ak ñaar ya mujj ci waxtu woowee mel ne jaamoo nga sa boroom ab nen am tuyaabay ab nen bu ñu nee daal suñ digganteeg ñu nodd nodd gu jëkk gi benn waxtoo ci des waxtoo wala ñuy xaaj juróomi xaaj xaaj bu ci ne doon fukki minute ak ñaar kem na nga gën a gaaw a demee nag ci juróomi xaaj yooyu ngay amee tuyaaba ju tol noona ñi ko addis bi ràññeele waxtu woowee nag moom la addis bi xaaj juróomi xaaj te xaaj bu ca ne mu tudde ko waxtu man igtasala yowmal jumuhati xuslal janaabati tumma raaxa fi saaxati al ula fa ka annama qarraba badana wa man raaxa fi saaxati attaaniya fa ka annama qarraba baqara wa man raaxa fi saaxati attaalitha fa ka annama qarraba kabshan أقرا ومن راح في الساحة الرابحة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساحة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر dañu ne malaaka yi dañuy ñëw taxaw ci buntu jumaa yi ku ñëw rek ñu daal lay bind jàpp waxtu wa nga dikkee amaana sax ñu saafu xante ak yow wala ñu laal la su waxtoow jeexee ca la ilimaan ba war a ñëw daal di tàmbalee xutbaaka julli ku yéex nag ba waxtu woowu jeex da nga fekk malaaka ya bàyyi ko ci bunti jumaa yi ñu taxawoon dem nag di déglu xutba ba hadis boobu abu hurayrata moo ko nettali rawaahu malik wal buxaariyu wa muslim wa taqsiirul xutbatayni ak gàttal ñaari xutba ya wa taaniyatu te mbir moom bopp ñaareel ba aksaru mu gën a gàtt wa rafo sawtihi ak yëkkati kàddoom nga bihimaa ci ñoom ñaar wa baddu uhuma ak seenug tàmbalee bilhamdi ci sant yàlla wasalaati ak julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqat mu thaniyati ak motlee xutbab ñaareel ba bi yaxfirullahu lana wa lakum wa aji sa a doy na it udkuroo di leen fàttaliku allah yàlla yadkurukum mu leen di fàttaliku wa qiraatun ak jàng alquran fiihimaa ci ñoom ñaar bokk na ci yam gën a sopp sopp ku feddali ilimaan ji gàttal ñaari xutba ya te yàggal julli ga te it xutbab ñaareel ba gën a gàtt bu jëkk ba gàttal xutba ya te yàggal julli ga addis ba nee na daa bokk ci dégg diine ak dégg loolee di jullit jumaa ga ko wax abul yaqzaan dane moo dégg yonante bi wax ne inna toola salaati rajuli wa qisara xutbati ma innatun min fiqhi fa atiilu alsalaata wa qassiruu alxutbata wa inna min albayaani sixran rawahu muslim yonent bi ne kay jiite yàggal julli ga te gàttal xutba ya tegtal la ci ak déggam diine ak uk déggam jullig jumaa ga dee leen yàggal seeni julli tey gàttal seeni xutba wax nag mën naa rafet rafet ba lum gàtt gàtt doy sëkk tàbb itam ci xol yi bu baax a baax woon ñaari xutba yi faw dañ koy biral wax ko ca kaw waaye nag xam nga wax ca kaw dafa bari ay tolluwaay kon sopp ga mooy ilimaan ji gën a yëkkati kàddoom lam man ndax ñi aajowoo dégg ñëpp di dégg ñu sopp itam ñaari xutba yi bu ci nekk ñu tàmbalee ko sant yàlla ak julli ci yonante bi ñu sopp itam xutba bu ci ne ñu jàng ca lu bokk ci alquran doonte sax day jenn laaya baax na am na ñu ne yonante bi daana jàng ci xutbaam bu jëkk yaa ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ba ca fawzan aziman su ca mënee jàng nag saaru gàtt te saaru lépp ñëw ni ki mu jàng ca suratul xasr wal xasr innal insaan la fi xusr ba saaro jeex loolaa gën ñu sopp itam xutbab ñaareel ba mu daaneele ko yaxfirullahu lana walakum yàlla nanu yàlla jégal te yëgal leen wala udkurullaha yadkurukum dee leen fàttaliku yàlla mu fàttaliku leen yàlla moom du fàtte kenn du fàtte dara waaye nag ku ko fàtte bu jëflanteeg yow jëflanteeg ku la fàtte wa tawakku un aku sukkandiku wala sukkootu xalaa xasan ci aw yat loolu daa bokk ci liy sopp ci bu dee xutba moom ilimaan ji moot aw yat wala ni ñu koy defee balamaan jàpp ca noonu mu taxaw di xutba loolu sopp nañ ko yonent bi daana ko def nee nañu gannaawam it abubakar ak omar ak usmaan yëpp daanañ ko def moo tax ibnu shihaab ne kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida qaama axada xasan fa tawakka'a alayha wa huwa qaa'imun ala al mimbar tumma kaana abu bakrin wa omar wa usmaan yafxaluuna dalik wa qiraatul jumuhati ak jàng suuratul jumuha wa hal ataaka ak hal ataaka aw sabbix wala sabbix bokk na ci ngëne lañ feddali ilimaan ba rakk bu njëkk ba gannaaw faatiha mu jàng ca suuratul jumuha rakkab ñaareel ba nag mu tànn hal ataaka xadisul xaasiya wala sabbih isma rabbika bu mu ci jàng baax na wa xuduuru sabiyin ak teeweg gone wa mutajallatin ak màggat mu jigéen wa mukaatabin ak ku ñuy jotoonteel wa xinnin ak jaam bu sotti àddina bopp digal na ko sayyiduhu sangam ba bokk na ci sopp gone dem julli ji waru ko waaye sopp nañ gone mu dem ci jumaa ja gone gañ digal julli nga xam ne am na juróom-ñaari at jëm ca kaw lañu wax màggat mu jigéen mooy jigéen joo xam ne màggat na ba góor ñi géesooruñ ko ba tey sopp nañ mu dem ca jumaa ja jaam boo xam ne daa tàmbale jot boppam mooy daa juboonteeg ab sangam ci fay ko alal tem goreel ko sotteegul waaye ma nga ci loola moom du aajowoo muy laaj ndigal sopp nañ mu daldi dem julli ji bu dee jaam bu sotti nag nga xam ne moom nekkul di jotoo bala ñoo sopp ci moom mu julli ji ab sangam may ko ci ndigal daa war a am ndigal njëkk wa taqiiru mahdurin ak yeexeeg ku ñu gàntal maanaam ku ami ngànt ak zuhra tisbaar in zanna ndem jortu na zawala xudrihi dañu ngàntam la wa illaa
ndéem jortul na gaaw dañ fëlëxoo kon ñeel na ko at taqdiimu jiital ga ku amee ngànt koo xam ne sañ naa julli tisbaar ndax ngànt la waaye nag yaakaar na ne ngànt li dana dañ ba mën a fekkee ji jumaa ja mel ne ñu téye ko ca gendarmerie waaye lañ ko téye daal nekkul lu am solo kon daañu sopp bu tisbaar jotee itam mu bañ koo jullee foofee ca gendarmerie ba te bàyyi ba xam lam jortoon ci ñu bàyyi ko bu amee mu daal dem ca jumaa ja su fekkee loolu amul nag mu xam loolaay dogal ba bu fekkee nag yaakaarul ne ngànt la luy gaaw dañ la ni kii kooku ñu téye ci gendarmerie bi lañ ko téye day lu rëy rëy loo xam ne kuñ ca mësaa téye moom say mbir du gaaw kon du jar mu yeexe tisbaar say bo rek mu daal di julli fa saasa duñ sopp ci moom ak yeexe
wa xayrul maaduri kudul kañu gàntal insallaahu ndem julli na ko tisbaar la moo ko tax di wax mudrikan mbir mu muy aji mën a jot li rakkatin ñeel ab rakka law saxaa doonte demoon na lam yu ji sihi du ko doy koo xam ne jumaa ji war na ko daa war a dem rekk ci jumaa ja su dëgëree bopp nag julli tisbaar te jàpp ne waxtu woowu mu jullikat bu demoon ci jumaa ja mën caa amub rakka tisbaaram joojee du baax bu ko ajjuma waree te naru caa dem moom lay tane mooy mu bàyyi ba jumaa ji sëlmal mu door a taxawal ak julleem julli tisbaar bàkkaar ba rekk des fa muy ñàkk gaa dem ca jumaa ja waaye li fekk nga xam ne jàpp nañ ne bu jógoon wuti jumaa ja mën ca amub rakk rek yooyu jamono bu jullee tisbaar te fekk jumaa ja war ko tisbaaram jooje du baax faaw da koy julliwaat kon ku jumaa war te naru caa dem na bàyyi ba jumaa ja sëlmal mbaa boog mu bàyyee bàyyi ba nga xamee ne bu jógoon jëm ci itam du ca mën a amub rakk mu door a taxawal nag julli tisbaar ñàkk dem ci jumaa ji nag te amul ngànt itam dafa bari lool yuñ ca tëkkoo ba tax na ku war rek war naa farlu ci di ca teew bu amee ngànt nag xam ne am na ngànt dañuy wax ngànt yi ci kanam kama ab zorin niki ku ñu gàntal zaala kook dañ na xodruhoo ngàntam la koo xam ne daa amee woon ngànt lu ko may bu bañ a dem ci jumaa ja far nag ngànt la teggiku te nga xam ne bu demee ci jumaa ja mën ca am baraka kon kooku bu fekkee julli woon na itam julleem googee du doy faaw rek daa war a dem ci jumaa ja moom sax desu ko yedd ndax ngànt moo ko taxoon a julli tisbaar waaye nag mën naa am gannaaw ba mu jullee tisbaar ngànt la dañ te jumaa ja jullee guñu mel ne day am jamono yoo xam ne su benn waxtu jotee rek daanaka tisbaar daal di jot su xamee loola nag jàpp ne man am naa ngànt daal di julli tisbaar te fekk bu dee jumaa ji ci dëkk bi moom dañoo takk rek ci ñaari waxtu la ñuy tàmbalee xutba kon ngàntam mën naa dañ ba noppi mu mën a dem fekke jumaa ja kooku nag julleem bu njëkk du doy faaw day aajowoo bu bañ a doy loo tisbaar ja te dem ci jumaa ja dagam ngàntam dañ na te mën na faa dem ci jumaa ja am ca rakka aw sabi yéen wala gone balaxa gog kàllafe na koo xam ne gone la nga xam dem ci jumaa ja du farataam mu daal di julli tisbaaram ba àggal nag gannaaw ba mu yëg ak kàllafeem te nga xam ne bu demee jumaa ja mën ca amub rakk gone googu tisbaar ji mu njëkk na julli wéeroon na baaxoon na waaye faawu day war ci moom rek mu daal di wuti jumaa ja julli ji jumaa ndax tisbaaram joojee moo ko naa fi li ñooyee moo woon julli waru ko woon léegi nag bi mu kàllafee julli war na ko te tey la ajjuma te mën naa am ràkk ca jullik jumaa ga kon faaw war naa dem ca jumaa ja wa hamdu xaatisin ak santuk aji disli si rancik yelu xaalal xutbati ci waxtu xutba wa jamono ñuy xutba ku tisli dañoo sopp mu wax alhamdulilahi rabbil alamin ci suuf te bañ koo yëkkati ndax bu ko yëkkatee mën naa am kenn daal koy wax ci kaw yarhamukallah daal di koy ndokkeel te bëgguñu ku yëkkati genn kàddu ci jamono yi ilimaan bi xutba kon bu tislee dañoo sopp mu sant yàlla de wax ko ci suuf kata miinin niki waxuk amiin wa taxawudin akuk muslu wa stigfaarin akuk sàkku jéglu xinda dikkri sababi fa tudduk sabab sax bu ilimaan dee xutba ba nga dégg mu tudd loo xam ne ñaan la daañu sopp nga wax ci suuf ne amiin waaye kenn du ko yëkkati nag bu tuddee loo xam ne mat naa muslu mel ne sawara ak mujj gu ñaaw ak yooyu ñu sopp nga ne yàlla yàlla nga ci musal te wax ko ci suuf bu tuddee loo xam ne bàkkaar la lu mat a jéglu la te nga xam ko ci sa bopp nga ne suñu boroom yàlla nga ma jéggal loolu day def naa ko ba tàyyi mbaa nangam ak nangam waaye lépp rek ci suuf kenn du ko sañ yëkkati ci kaw wajaasa dagan na taxatin jéggi xabla juloosil xatiibi ci njëkk tooguk aji xutba ja ca kaw minbar ba li furjatin ngir bu gisee ab yaatu yaatu bu mën a dugg wa ba'daha ak ci gannaaw xutba ba xabla salaat njëkk julli ga mutlaqan ci lu amul genn tënk ka machine niki ak dox bay na sufoofi ci diggante sàppe ya wa kalaamun daga na itam wax man nga jàng itam wa kalaamin bu ataf ci ka machine ñoo yemoo ak wax ba adaxaa ca gannaaw xutba ba li salaati ba ci julli ga wa zikrun akuk tudd yàlla xàlla goog néew na sirran ci yelu wa nax yu xatibin ak aayeg aji xutba aw amruhu wala digleem wa ijaabatuhu akuk tontoom gannaaw nag ba mu waxee ya ñu sopp da cee bëgg a teg yi nga xamee ne sañes na ko dagan na door caa teg yi nga xam ne yu ñu sib lañu door caa teg nag ya araam mu jëkkee wax ne su fekkee ilimaan ñëwagut bay toog ci kaw minbar bi kon boo séenee yaatu yaatu boo mën a dugg mën ngaa jéggi sàppe si jàll ca see dangam séen nga am yaatu yaatu rek jéggi sàppe si jàll ca see dagan na dana leeral ca kanam ne su fekkee ilimaan ñëwagut bay toog ci minbar nga bëgg a jéggi nag sàppe si jàll ca see tey séenoo foo toog da ngaa bëgg rek xool ba xam ne nga gis foo toogam nit waaye séenoo fenn fooy toog boobaa dañ koy sib gannaaw bu ilimaan bi xutba ba àggal li fekk ñi armal wax allah akubar tàmbali julli ga rek mën nga jéggi sàppe si jàll ca seneen jàll ca seneen moo xam séen nga foo mën a toog moo xam séenoo foo mën a toog ndegam daal xutba bi àgg na ñu ngi jëm nag ci liqaam ak armal diggante boobu laata ñu armal moom mën nga fee jéggi sàppe si jàll ca seneen donte séenoo sax fa ngay toog ba àggal da ngay wari rek ba xam du tee nga sañ a jéggi sàppe jàll ca seneen dox diggante sàppe yi moom maanaam aw ci diggante sàppe yi tàmbalee fee ba fa jumaa jeyam di xool ba xam da nga séen foo duggam déet boo gis lu foofu tàmbaliwaat doxaat diggante yeneen yaari sàppe nga xam ne jéggiwoo sàppe si jàll ca see diggante yaari sàppe yi ci ngay dox rek di xool ba xam da nga séen foo mën a duggam déet loolu moom sañes na ko ci jamono yu ne ayul ci genn wet ndax dooloor kenn bu soobee yàlla ba àggee fa jumaa jeyam diggante ka mujj foofa ci sàppi sa ak miirub jumaa ja foofa ngay awe nag awaat ci seneen sàppi di wërati ba xam ba tey sañees na bu ilimaan xutbaa ba àggal laata ñuy tàmbalee li xaam diggante boobu nga wax fi niki nga wax fi sa soxla wala waxtaan feek keneen waxtaan wu gàtt wala yitteel xutba bi àgg na waaye tàmbale gu ñu sax li xaam diggante boobu mën nga fee waxtaan waxtaan wu gàtt waaye nag bu ñu xasee tàmbale li xaam moom ba ba li xaam bi daanu ba ba ñuy armal diggante boobu la ñuy sib ku fi wax te gannaaw bu ilimaan armalee itam wax day daal di araam jëm julli ga rek moo fa war a sës ba tey sañ nga bu ilimaan dee xutba ngay tudd yàlla ci suuf ndànk-ndànk te bañ koo baril nde boo ko yëkkatee moom day araam dañ ko wax ca kanam waaye nag ilimaan di xutba ngay wax subhanallah mbaa laa ilaha illallah mbaa allahu akbar mbaa beneen sikar ci suuf di ko yelu te bañ koo baril loolu dagan na sañees na ko de sax ne pat déglu xutba ba moom lañ gën a taamu kay xutba itam bu gisee lu mat a aaye mbaa lu mat a digle dagan na bu dee la ñuy digle mu digle ko bu dee la ñuy aaye mu aaye ko dañu bañ mu defe ne bu xasee tàmbalee xutba sañu te digle lu mat a digle mbaa sañu te aaye lu mat a aaye aha kay xutba ga muy xutba du tee mu sañ a digle lu mat a digle sañ a aaye lu mat a aaye mel ne bu seen kuy jéggi sàppe see jëm ci see mu ne ko déet bàyyil jéggi bi ngay jéggi yaa ngi lor nit ñi loolu ak aaye la wa ijaabatuwa jéem wax nag mooy kookee aju xutba ji digal mbaa mu tere ko mën na ko tont ne ko ah jéggal ma nangama tax kat teyuma ko de dama am ngànt de loolu ba tey dagan na ndegam noppi na nag ci yeñu daganal nga xam ne sañees na ko mu teg yeñu sib lu ñu sib nag mooy loo xam ne soo xamee ne taamuwuñ ko nga moytu ko ñu bindal la tuyaaba ci moytu gan ko moytu wa kuriha sibeef na taxatin jéggi baati nit ñi xablal juloosi ci njëkk tooguk ilimaan ba ca min barba li xëyri furjatin ñeel lu dul seen ab yaatu yaatu watarku tuxurin ak bàyyi laab maanaam bañ a laab rek fii himaa ca yaari xutba ya wal xamali ak bàyyi liggéey yow maxaa ca bisub jullit jumaa ga watana fulun akuk naafila xindal addaani fa nodd ga li jaali si ñeel aju toog yuqta daa kuk def na roy bisi ci moom wa xudooru shaabatin ak teewuk waxambaane wu jigéen xayri mufti natin wow du sababu fitna ca góor ña wa safarun sib nañu tukki itam ba'dal fajri ci gannaaw fenkuk fajar bu ilimaan ak seegul bay toog ci minbar bi jéggi sàppe si jàll ci see dañ koy def ñaari xaaj bu fekkee da ngaa séen foo toog xam ne boo jéggee mën faa toog kon loola dagan na sañ nga ko su fekkee ne nag séenoo foo toog da ngaa bëgg boo jéggee rek xool boo xam ne nga gis foo toogam déet boo ko defee def lu ñu sib ba tey sib nañu ilimaan bay xutba muy xutba te amewul ak laab mel ni daa nar bu xutbaa ba noppi door a dem jàpp wala farataam mooy tiim mu daldi bëgg a xutba ba àggal door a tiim nag julli kon ilimaan xutba te amewul ak laab sib nañ ko sib nañu itam bisu ajjuma mu ne du ci liggéey day bàyyi ab liggéeyam ndax màggal ajjuma ji rek dañuy bañ li nga xam ne moom la yëfoot yi def di màggal gaawu ba bañ caa liggéey wala nasaraan ni ñu def di màggal dibeer ba bañ caa liggéey dañuy bañ jullit bi def noonu su amee liggéey moom bu ajjuma ñëw na ci xëy rek nekk ca ba nga xam digganteem ak ñi war a noddu wenn waxtoo ca des mu daldi gaaw ñëw nag ci jumaa ji bu amoon yéene nag def ajjuma mi bisub noppaloom ndax mu mën a teel a waajal jumaa ji ak mën a bari la jàngal quraan mbaa xasaayit mbaa siyaare nit ñu baax ñeg yu demee noonu moom nga xam ne jàpp gam jàppe ajjuma mi bisub noppalu da caa fasaale yéene yu baax yooyu la ci fas yéene def kon moom lu ñu sopp lay doon tuyaaba ju rëy rëy la cay am bu soobee yàlla nga xam ne kon bisu àjjuma ñëw jullit bi bañ caa xëy ci ab liggéeyam mi ngi takku rek ci yéeneem bu fekkee daa bëgg a màggal rek àjjuma ji mel yowat ak nasaraan ci seen bis yooyu